gannaaw bi ñu jógee ku tàngu wutali fi nga xamante ni moo di càmmeen màkka commune de Ndarame Escale soxna si nga xamante ni moo di Anta Dieye ba mu agsee waa dëkk ba teeru nañ ko nañuy teeroo buur ki nga xamante ni moo di imam bi daal di yëkkati ay kàddu nga del waaye borom dëkk bi tamit yëkkati ay kàddu cant ak ay nga del jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di Anta Dieye ci geste bu rafet boobu nga xamante ni def nañ ko ñuy sant yàlla si sa si kontaan di la dalal wax bismillah bismillah bismillah ànd nañu ngi yéen ci lépp loo xam ne li soxla ngeen ko ci lu baax ñu nit dañ leen ci fekk si ànd ak yéen jàppalante ak yéen bokk lépp lu ñu war a def parti bi ñu bokk ñun ñëpp liñ ci yéene yal na ko yàlla def yéen it jëf ju baax ji ngeen ñu defal ni yal leen yàlla fay seeni jëf. képp koo xam ne nekk na ci leader bi leader ci parti bi xam nga ko tey bu ñëwee tànn caaben màkk tey xam ne militu fi. mu ñu jàppale ñu vraiment Anta ñu ngi lay féliciter encore une fois yoon mu ngi ci kanam ñu xam ne affaire bi ngi doog commencer c'est un début mais ci kanam lañ jëm yaakaar naa ne tey wax dëgg yàlla partie bi muy suñu parti AFP gis nañ la fay def ci Dakar gis nañ la nga fay def ci région bi gis nañ la fay def ci département bi ci sa commune et l'ensemble du département nous vous dirons encore merci et félicitations encore et bonne continuation notre sœur Anta Dieye. lii la. mbiram jàkka kenn ku ne muy jigéen muy góor lépp lu ci waay def lu ne kooku defar yàlla la ku defar yàlla yàlla rek mooy am sa pay yàlla am sa pay na la fay rajo yàlla sëñ Fallou lii moom kontaan rek lañ ci def. ki la xee fëgg la jox la ndeew bu la nee ndul xaaraañ mën naa am dana la joxaañ kon suñ yaakaar ñun teg nañ ko ci sa loxo bon te di la la bàyyiloo xel jàkka la ñu ñaan nañ fu nekk juma. fu ne dugal nañ fa suñ loxo su yàlla defee dogal bam sotti liñ bëgg ñun ñëpp mu nekk bëgg nañ ku ñu ci jotalee ndax mën naa ñun fi ñu mën a yuuxu suñ yuux ci suñ gox la mën a yem yow mën naa am nga mën ñu ko jéggalee mu jàll ba région dem ba département dem ba région dem ba capitale li ñu wan ba fees ci suñ xol yi yal na la ko yàlla wan ci la ngay yëngatu ba mu ci sa xol bi ba nga yëg ko yal na la yàlla may barke ci saahir ba ñëpp gis ko yal na yàlla may barke ci baatin ba sa xol bi ak sañ bokk yëpp yëg ko barke yonent yàlla ma ñu ngi gërëm ñu ngi sant asalaamaaleykum wa rahmatullah te lii ngeen indi fii du lu tuuti une tonne ciment ah mën naa tàmbali lu bëri te tàmbali moom tàmbali la barke rek moo ci am solo lépp luñ ci tàmbali yàlla na barke yéen itam fa ngeen ko jëlee jeexut fa yàlla ngeen fa mën a jëlee lu ko ëpp lépp lu ngeen mébél rek yàlla nañ ci yàlla jàppale parce que comme niñ ko waxee lii jumaa la bëgg nañ si ndimbal nga bokk si ñu njëkk a ñu participer si jumaa ji une tonne de ciment loolu acte bu ñu rafetlu la kontaan nañ si trop jeune nga yaa ngi si yoon wi euh, am ay ambition yu am solo yéen yàlla jàppale la ba sa objectif yëpp nga atteindre ko bokk si ñi gën a euh, siiw si ñi ëpp kilifteef ñi ëpp personnalité dans le pays plus tard même le dirigeant du Sénégal. di doomu wàllu doomu Koutango ndax suñu sa bàyyi fan la ñu ne Touba ci àll ba. yaayam fan la ñu ne Koutango ci àll ba kon doomu waalo la mais yàlla nag mooy dogal ay dogalam ñun ñu bokk ak yaayam benn baay yàlla dof mu jàngee Koutango jógee fa dem wàkku nguna jógee fa dem Kaolack jógee fa dem université lépp luy xaati diplôme bi li yàlla lay jagle yàlla may na ko ko tey. ñu Koutango gi ñu di ñu fa leen dëkk yéen mag ñi da ngeen xam Koutango fu mu nekk armée la ci digg dëkk ba la nekk ndax cosaanu ku yow xam ngeen Koutango bu baax. bu mu jógee foofu rek armée li moo ko collecté doomu Koutango dërëmu Koutango dugg ci moo ko miiré ba defal ñu ko ñaari buntu tëj ko tijji ko te di jigéen kon forcément xamal leen ne lu baax lu muy def dugguleet waaye ñu leen ay ñaanal ko yàlla rek ñu ko ñaanal bi la sansu saalum la ndax wax dëgg na yàlla xale bu jigéen bi def li muy def yombul nag yombul donc di wax rek ne ci teemoo ñëpp nit ku baax la imaam lu mu ngeen ko mën a ñaanal ñaanal leen ko yàlla leer na ma ne bu ko yàlla may li mu bëgg njëriñu saalum la njëriñu bépp région bu doxuma département mais région Kaolack bi seen njëriñ lay nekk kon donc dañ koy jox ay kàddu Anta sa dëkk la sa jumaal def nga fi lu baax. salaamaaleykum waa Thiamène Màkka maa ngi jégalu nag ci ci baat bi ah tabaski bi bi mu paasee ba tey ci ay activité lañ nekkoon loolu moo tax coono yeeg yooyu tooguñu loolu moo tax may jiital ci nuyoo bi borom dëkk j'espère que su ma ko nuyoo dina yóbbaale képp koo xam ne rek mi ngi ci dëkk bi. Euh, di nuyu aussi particulièrement ñi nga xam ne ñoom laa bokk a parti te ñu nekk ci dëkk bi euh, di leen nuyu yéen ñëpp euh, di fàttali xëy na tey du politique sax moo ñu fi indi parce que mbiru yàlla moo ñu fi dajale dañu ñëw def ngir yàlla tax ñoom lamin ak ñoom Pape Sow ñaari Lamine yi dañoo baax rek di wax parce que Pape maa ngi jégalu encore une fois lettre bi bi ma ko waxee j'espère que yàgg na parce que moom gisante wuñ sa xamul ma benn élève la xamoon wàkk xam ne ko xam na ma rek mu bind lettre jox ko kooku ne ma Anta am nga lettre bu la fi jox pour Thiamène Màkka nee nañ seen jumaa jeeg ma ne ko Thiamène Màkka foofu de am na ñu ma bokkal parti ñu koy wax fa lañ dëkk d'accord téyel ma lettre bi moom it lettre bi man ba tey teguma ci bët dama ne ko comme jox nañ la rek man boo ma waxee gëm naa la après si laa woo ñoom Lamine Thiam mi ni mu ko waxee mu ne ma effectivement pam moom xam nañ ko suñu frère la ñoo bokk dëkk ma ne ko même su ngeen ko xamutoon man su ma waxee war naa mën a def ngir yàlla tax parce que defuma ngir politique defuma ngir Thiamène Màkka mais su defee yàlla daf may fay te dama ciy am donc lépp lu ñuy def buñ ci jiitalee yàlla rek duñ ci sonn xëy na ay ndaw leen yàlla ak ñuy suturaal lépp lu ñu mën rek ñu ngi koy def mënuñu dem ci ku nekk ñu yëkkati benn 5000 man may la benn 2000 waaye yàlla mën nañu suturaal ba loo xam ne dinañ ko def képp kuy askan wa rek di nga si jëriñoo tey bu ñu defee lii si jumaa ji du waa AFP kese lañ ko defal du imam bi du borom dëkk bi keneen mën na jógee beneen dëkk fi sax wàlliwu yàlla jaar fi julli ñaan ñaan nga mun na yegg si si ñun di wax ne ñun seen doom leen Euh, seen jarbaal lañ seen sël leen lépp loo xam ne am nañ ko ñu mën ko partager ak yen dinañ ko def du ñu toog di dik parce que amuñu benn nomboy tànk amuñu ay millions amuñu ay milliards mais nag lu ñu yàlla suturaal as néew bu dee benn 5000 francs te ñu xam ne bu ñëwee indi ko fii dina jë dina jëriñ dëkk bi dinañ ko def incha allah jigéen ñi lu ñu si mën a jàpp amuñu mënuñu mais yàlla def na am na ñu relation ak nit ñi su ñu amee seen i mbébét bu ñu demee wax ko ñoo xam ne mun nañ si jàpp bu ñu si jàppee ñu ñëw ñu indil leen ko buñ si jàppati ñu xam ne seen doole yeggul fa ñun lu ñu jéem incha allah leneen lu ñu man rek dinañ ko def encore une fois du ñu guddal mais di leen wax ne defuñ fi dara ngir ngistal defuñ dara ngir alal waroon nañ ko mën a indi bu yàgg mais ñun ñoo bëggoon ñëw ñu fekk gis waa dëkk bi nuyoog yéen xamanteeg yéen te xam ne su ñun seen doom leen voilà seen i jarbaal leen seen i leen et ngeen jàpp ne encore une fois luñ fi def rek yàlla rek a tax ñu def ko et ngeen ñaanal ñu rek ngir yàlla tax ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di jégalu encore une fois waaw incha allah incha allah incha allah amin incha allah ba ñu jógee Thiamène Maka wutali fi nga xamante ni moo di Koutangu Anta Dieye continuer journée d'action progressiste bi nga xamante ni moom la doon amal ñu noté li nga xamante ni moo di installation de zone li nga xamante ni waa dëkk ba ay at nii ñu koy bëgg mënuñu koo am Anta Dieye leen koy indil waaye mu daal jël yoo xamante ni ci école française bi lañ nekk ak franco arabe bi daal leen di li nga xamante ni moo di moo di Anta Dieye kilifa yi nga xam ne jógee nañ ci ay gox yu fasanti ko ñëw fii ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen wax bismillah waaw ah, honorable député ñu ngi lay nayu di la dalal fii ci Koutango di nuyu Moustapha Thiam mi nga xam ne responsable la fii si zone bi nekk doomu gox bi nekk doomu Koutango di nuyu Souleymane Sirif Aydara di wane sunu kontante nag si teew bii nga xam ne teew ngeen ko fii si bés boo xam ne suñu jarbaat Anta Dieye moo ko waral ndax kat képp koo xam ne nii teewu nga si bésam rek mel nga ni Koutango yépp nga teewal ndax doom la si Koutango doom joo xam ne bëgg na goxam bëgg na cosaanam bëgg na ay way juram waaye bëgg na ay mbokkam waaw ku ngeen di gis noonu mooy euh, madame Anta Dieye moom moo war a ñëw tey joxe discours am fii nii wax li nga xam ne nii moom moo tax a jóg euh, moo ko tax a jóg tax a jóg aussi askan bi yëpp euh, madame Anta Dieye moom moo nekk noonu moom la ñuy jox discours bi léegi léegi léegi léegi rek xidam la ñu wooy yaayam di teel a xëy di gudde wàcc te bëggul daray góor jàng na fii jàng na wàkku ngu a am yar am teggin am fulla ci boppam góor baax na jigéen baax na tubarkàlla macha allah bu ma wooyee dama am tey programme weloo ngi noonu ñu yebal ko mu jël si ma waaye fu ma jaar damay teew sa bés bi ndax yaa ma ko jaral am nga yar am nga teggin salaamaaleykum mbokki waa tàngoo ak li ko wër ma jël nuyoo bi di ko teg ci loxo chef de village di di suñu nijaay Babacar Dem mu jàllale ko bépp ndaw boo xam ne yaa ngi fii kilifa ci gox bi ak li ko wër su ma nuyoo imam aussi euh, dafa am koo xam ne moo représenter le département de Nioro au niveau de l'Assemblée nationale muy le député maire Aliou kebe di suñu nijaay di suñu mentor di suñu référence di suñu responsable aussi ci politique monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci Koutango su ma paree ci lool ma nuyu bépp responsable boo xam ne yaa ngi fi mais di beral nuyoo spécialement représentant ASC yi nga xam ne jóge nañ ci dëkk yi ma man ci lim waa Ngomeen lim ci Fetto lim ci Kër Tofa lim ci Touba lim ci Kër ngoor lim ci Ndiba ak Koutaanga aussi bi nga xam ne bokk na ci zone bi nga xam ne war nañ ko installé suñu paree si lool ñuy nuyu directeur école yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi nga xam ne tey journée bi ñoom ñoo ko waral au delà du euh, côté euh, sport bi côté aussi santé bi mi ngi fii mi waa directeur école yi nga xam ne ñu ngi fi Omar Sall ak Fodé Aydara ñu ngi leen di nuyu euh, bi ñu ñëwee ci côté santé aussi ñu nuyu infirmier chef de post bu Kër Tafa di Mamadou lamin Niang mi ngi fi di nuyu aussi Pape Seck président mutuelle de santé bu Wàkk Nguna mi ngi fi mais loolu lépp am na koo xam ne représenté na fi direction générale de la CMU au la mu nekk responsable politique bu AFP section de Wack Ngouna nekk suñu tonton tey daf fi nekk si ñaaru casquette parce que CMU la nekk muy Moustapha Thiam nekk ci pôle communication bu direction générale de l' agence de la couverture maladie universelle Moustapha Thiam ñu ngi lay nuyu di nuyu également le représentant du chef de service départemental des sports nga xam ne moo fi représenter le ministre du sport Matar Ba mi nga xam ne journée bii ñuy def tey le ministre yëng na ko et que di leen xamal ne avant may ñëw daf ma woone daf may recevoir mais ak xat-xatu tabaski bi moo tax mujj ma gis ministre bi te incha allahu rabbi suñu paree ci tabaski bi dinañ fa dem te lu luñ fay wax rek pour lu jëmale dëkk bi kanam la lu dem jëmale village yi nga xam ne ñoo wër Koutango kanam la département de Nioro mais région de Kaolack aussi di nuyu particulièrement monsieur Dia muy le secrétaire général de l'ODCAV de Nioro mi nga xam ne moom la ñu yebal tey moo fi représenté la ministre du sport pour mën a installer officiellement zone bu tàngoo wax ji du gudd parce que xañ na yàgg nañ di def duñu wax te defuñu tey pour wax pour ngistal mais dañoo def parce que dañoo war a def dañoo dëkk ci dëkk bi ah ñu wax ne ñun dañoo war a bokk si ñi nga xam ne ñooy doxal dëkk bi waruñu toog di xaar lu ñu politiciens yi jox ñu lekk wala ñu dugal suñu kër am na loo xam ne bu ñu demee ñu liggéey ñu am ko dañu war a ñëw ñu delloo njukkal waa population bi parce que tey Anta nu manti mel lu ma manti am tey suñu ma xamee xëy na ci parti laa nekk parti ban la muy parti président Moustapha Niass président Moustapha Niass day doon suñu leader doon suñu responsable mais au laa de ça man sama papay bopp la te daf ma bëggal boppam te waa Koutango xam nañ ne président Moustapha Niass bëgg na ma su ma nekkee di politique ci wetam li ma war mooy lépp loo xam ne lu baax mi ngi ko doon def man war naa mën a lu def ko looloo tax li ñu def tey nii du politique du lenn mais dafa am yoon boo xam ne daf ñu fa teg muy social ñu ñëw di ko def xaaruñ dara ci nit xaaruñ lenn ci nit neneen si parti ku nekk ci parti nag bëgg nit ñi ñëw ànd ak yow mais li ñu war mooy au delà de la politique mooy ñu dimbale waa Koutango dimbalee arrondissement de Wack na dimbale département de Nioro dimbale région de Kaolack et Sénégal ëllëg buñ ko waree doxal ñun ñu toog ci table bi nga xam ne ñooy diriger pour doxal ëllëg Sénégal balaa ñoo doxal Sénégal nag il faut que ñu développer suñu dëkk déwol développer suñu réew et que di leen encore une fois lépp loo xam ne ñun war nañ ko mën a lijjanti mu ñëw fii pour gox bi jëm si kanam dinañ ko def nekkul ne Koutango kese la ñuy représenté encore une fois département de Nioro la ñuy représenté région de Kaolack la ñuy représenté Sénégal la ñuy représenté yàlla suturaal nañu fi ñuy tànnee jeunes yi ci Afrique de l'Ouest seen doom ju xeebu ji def ci bokk dem naa fi Togo dem naa fi Côte d'Ivoire donc am na loo xam ne suñu ko amee newul ne Dakar lañ koy bàyyi mais fii lañ koy andi ñu bokk ko ak yéen parce que bu ñu waa Dakar xamee yéen yéen a tax encore une fois monsieur le maire Aliou Kébé maa lay gërëm di la sant bu baax tey yaa fi représenté président Moustapha Niass di leen xamal aussi que ne bés bi bu ma ko jàppee dama woo imaam wax ko ko parce que mooy borom dëkk mu jox ñu ndigal waaye tamit ci wàllu politique du ma def lenn loo xam ne président Moustapha Niass euh, d'accordul ko dama ko woo ma ne ko terrain bi nga xam ne ñuy fulbalee sa tool la yaa ko moom yaa ko mayoon jeune Koutango waaye ñun fii nii suñu kii bi officielul dañu bëgguñu ñu ñu zone te balaa maa def lenn di nga ma si jox ndigal di ma ñaanal mu ne ma maa fii demal tu auras mon appui total te appui am total jot naa ko di leen wax ka ne président Moustapha Niasse fàttewul leen tey fàttewu leen ëllëg lépp luñ fi def tey suba ba ngoon yëm na ko te incha allah maa ngi gërëm di leen bu baax. voilà kooku mooy madame Anta Dieye moom moo fi jógee ko léegi euh, annoncé discours bu neex boobu commencé ko ci ay nuyoo. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillah alhamdulillah maa ngi sant yàlla bu wér di jolli ci junni ci yonent bi salallaahu alayhi di sant waa mbooloo mi yëpp waa Koutango lii kum doyut dara du la doy su ma jógee ci loolu ñii nga xam ne ñooy ndawam ki ko jiite muy monsieur le de maire di sama nijaay di sama lépp ñu ngi lay nuyu di ci teg jarbaati Moustapha Niass bi di Tafa Thiam di sama xarit di sama lépp di di nuy Anta Dieye mi nga xam ne yàlla moo ñu boole dëpp ba mu nekkee xale ba léegi nii lu ne ma dégg ngir moom lépp mu moom lu ne mu déggoo ngir man waaye yàlla xam na ne dëgg rek moo tax ñu ànd ak bëggante te yàlla tax moo tax lii mu am Koutango jomb ko tey incha allahu rabbi yàlla dina ko may lu ëpp lii. li ma fit gën li ma fi indi nag muy lan muy wàllu sémi bi ñu wax loolu muy sama domaine loolu damay ko sawar wax ci parce que nit ku nekk bu ñu la joxee li tax ñu war la ñu jox la nga wax danga cee war a wax muy sémi. CMU dafa nekk benn politique boo xam ne nii monsieur le président de la république du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall moo ko initié muy initiation boo xam ne lu rafet la lu màgg la lu rëy la mais ba léegi nit ñi dañ koo dañoo xamul lan la yaakaar naa buñ ko xamoon dañuy waxuma la daw sax mais dañu koy xëccoo ngir am ko muy lan sa fekkee cent pour cent la dañ ne yow mi nga xam ne yow yaay faju vingt pour cent ngay fay loolu mooy lan maanaam sa ordonnance tey su nekkoon dix mille francs yow deux mille francs ngay génne sa poos joxe li ci des état moo koy fay kon nañ nañ nañ nañ nañ gën a jàppalante ñun ñëpp ñu adhéré wu ci mutuelle yi te te yi bàyyiwul dara fekkee ci hôpital yi la lépp loo ki vingt pour cent la comme ni ma ko waxee fekkee da ngaa dem pharmacie cinquante pour cent la kon loolu laa amoon li may wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa population bi taxaw li ngeen ma defal xet na sama xol te yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla defal jàmm wasalaam. voilà merci beaucoup mbokki Koutango maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di sant yàlla ci teewaay bi ñu teew fii tey ci bés bi nga xam ne suñu jarbaat mais suñu camarade de parti mademoiselle Anta Dieye moom moo jël initiative bi pour def ko fii si Koutango Anta maa ngi la koy wax léegi toutes nos félicitations et tous nos encouragements un de mes cahiers de chevet qui ma sert souvent de repère dans ce cahier-là un passage des lectures de l'honorable député à travers, je pense, un document de Nouvel Horizon qu'il m'avait dicté lui-même. C'est une réflexion de Jacques Attali qui disait ceci, et retenez bien ça, chers jeune Le pouvoir politique n'appartient qu'au groupe organisé qui savent saisir les opportunités dans les circonstances de l'histoire. Ça, vous me le disiez en 2011. <laughs> C'était en 2011. Donc, chers jeunes, chers jeunes, organisez-vous davantage. Saisissez les opportunités et ne ratez pas les circonstances de l'histoire. Et vous êtes sur le chemin. Bonne continuation. honorable député daf ma ne woon ma wax ci cadre couverture maladie universelle dëgg la je fais partie de l'agence nationale de la couverture maladie universelle mais loolu damay excuser wu pour bàyyee ko le président de la mutuelle Pape Mamat Seck qui est là et qui fait un excellent travail ndax yàlla dafa dogal président de la république bi mu amee vision wu jafe-jafe faj mu dimbale si ñi ñi mu créé 676 mutuelles de santé benn mu gi fii Pape nga koy doxal bu baax soo ñëwee nga expliquer leen lan mooy njëriñu couverture maladie universelle pour ñu gën a xam anta lim def nii tey lan mooy njëriñ li. dama ne li président Moustapha Niass waxoon si suñu congrès ne ana ban parti moo bëggul am secretaire général bu mel ni président Mac président Moustapha man moom laa gisul. mais ñun tamit dañuy wax loolu en tant que responsable de section chaque responsable section dans ce département aurait besoin d'avoir un profil comme Anta dans sa section parce que ça valorise le capital donc Anta encore une fois merci beaucoup sëñ Ibou jaago Pa Omar Diouf tous les responsables ici présents xam naa ñenn ñi xat-xatu tabaski bi moo leen téye mais section wu AFP bu wàkku ngu na yëpp tey dañ fi waroon teew euh, sama nekkuma pour politique mais kàddu de remerciement la fi may remercier mooy lan mooy Anta Dieye li tax ma koy remercier mooy dafa doon individu boo xam ne dafa gëm boppam man nit ku gëmul sa bopp man Sall Omar waxuma ci yow dara bugguma la gis faalewuma la gëm sa bopp mooy lan di def un politique la politique de développement du euh, cimetière yi nii tey deretu bopp la du mooy mbagg kum neex kum naxadi soo fi tëddul sa morom tëdd fi wala sa maam tëdd fi wala sa baay tëdd fi donc kon sutura boobu nañ ko wax donc nañuy wax vraiment nit bu defee lu baax dañ ko war a wax ndax ñeneen man ci toy roy topp ji beneen kàddu cant gi monsieur le député man maa ngi koy doog a gis tey mais je dis Mais pourquoi ko il ne peut pas demander le Sénégal par lan réew mii ñu jox ko tool yii ñu jox ko man mosuma ko gis mais ku fa dem bu de xobi limoŋ di ko fa am su dee doomi limoŋ di ko fa am boo soxlaa ganaar di ko am man mosuma ko gis mais je dis toujours nekk kii ku ko jox réew mu doxal ko ku ko jox réew mu doxal ko muy monsieur Aliou Kébé voilà merci boo juddoo ba maa ga tàlle demal nga jàngi yaay jàngi alquran war a tijjil laay boo juddoo ba maa ga xàmme demal nga jàngi julli harmonia boo delaay ji jiital nuyu bi si borom dëkk bi euh, borom dëkk Babacar Deme ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu monsieur le maire Aliou du nuyu suma mag ju baax ji Serif ay dara maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax euh, suma nag dama koy jiital si CMU bii Euh, ante indi fii suñu localité bi lii nga xam ne ni dox nañ ko ba sonn parce que euh, ministre de l' éducation nationale lancé woon na lii dans les écoles ñu jéem ko dox dem dans si population yi euh, fexe leen sensibiliser si couverture maladie universelle mais yàlla def na antuwut mais yàlla tey la ko tudd ante suñ doom ji ñëw tey fexe installé loolu fii si Koutango vraiment ñu ngi koy sant di ko si gërëm dama bugg ngeen tàccu Antia bu baax a baax a baax a baax Antia kontaan si yow bu baax. di jiital nuyoo bi direct yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Sirif ay dara di ci teg borom dëkk di jiital nuyoo bi nag nuyu xaas honorable député Aliou Kébé. ma ñëw nag directement ci li nga xam ne tey moo tax ñu ñëw fi tey ma bëgg ngeen bàyyi xel bu baax surtout nag surtout nag yéen jigéen ñi. nga xam ne yéen a toll ci diggante ëmb ak bi ñu wax leen importance bi nga xam ne tey moom la mutuelle am te it mu loo xam ne politique boo xam ne comme ni ko ñi ñu jiitoo waxee politique la boo xam ne gouvernement Sénégal moo ko fi teg pour que mën a yombal nit ñi seen paj li muy yomb-yomb nag ku ci dugal sa xaalis doo ci bokk président la mu man def na ko mooy génne fond boo xam ne bu bu rëy la bu yaatu la am yéene pour def ko ci askan wi waaye ne loolu la muy bari bari ak la muy baax baax baax tey bu fekkee ne tey demoo defi ca yaakaar naa ne doo ca mën a bénéficié woo kon lool ñu ngi sàkk ci mbooloo mi bu tey weesee ngeen fexe ba ku nekk ñu fexe ba ku nekk ci yéen nga bu a ñëw adhéré ci mutuelle san mutuelle santé bu Wakunguna ay tout leen ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo bénéficié wu tey euh, carte ne mooy 80 francs yi si des état moom moo ko koy fayal lii la ñuy wooyee maladi maladie universalité def ko également dans la commune de Wakunguna et que sans plus tarder aussi du ñu fii ni kese dañ koy yóbbu au niveau départemental au niveau régional gannaaw commencé na capital Anta Sy indi ko fi mu hôpital fi nga war a fay ñaar fukki dërëm ñeenti dërëm nga fay fay xaalis bi état moom moo la koy fayal te bu njëkk bu ñu génnee fii demaat aussi au niveau départemental la même chose ñu jëlee leen également au niveau départemental yóbbu leen au niveau régional. France la fu ma ko fu ma fu ma dajeeg moom dinaa ko wax aw ma lu may nëbb di féliciter ma sœur parce que tey dama ñëw si ñaari casquette je la en tant que secrétaire général de l'ODCAV de Nioro Direct mais également en tant que représentant. du service départemental des sports ñaari structure yooyu noonu yëpp Anta félicité nañ la ñu ngi lay encouragé ndax tey li nga réussir fii lu c'est pas quelque chose qui est évidente installation d'une zone parce que nawetaan décret présidentiel la président moo ko signé du caaxaan président zone kilifa la balaa nga ko doon xam tey nga jël sa téléphone woo préfet léegi mu woo la léegi mu wuyu la boo ko laajee dara léegi mu def ko du li nga xam ne caaxaan la te Anta réussir na ko fii donc dama leen di ñaan ngeen tàccul ma sama sœur Anta Dieye ndax li mu réussir du lu caaxaan du du lu ndaw nawetaan structure organisée la structure organisée la parce que la ñu wax association sportive et culturelle sportive bi adjectif la culturel adjectif la mais balaa muy doon loolu noonu yëpp association la association organisation de personnes la donc ay intellectuels ñoom ñoo koy jiitu ñoo nekk au début ñoo nekk à la fin donc kooku buñ neen mu ngi accompagner la jeunesse de sa localité lu dañ koy gëm te loolu yaakaar naa ne mën ngeen ma ko seede yéen waa ku Koutango ndax Anta tey du tey la nekk la intégré mouvement associatif du tey en tant que jigéen la intégré ASC man dama ko daan dégg bi mu nekkee président d'ASC du tey en tant que jigéen n'est-ce pas donc tey bu taxawee ne da ngay day jàppale jeunesse bi dimbale leen organiser leen ba ñu am une zone légalement constituée je pense que war war nañ jàpp ne kii actrice de développement local la donc vraiment war nañ ko jàppale au nom de l'ODECAV au nom du service départemental de sports Anta ñu ngi lay féliciter ñu ngi lay ñaanal yàlla vraiment li nga mën tey yàlla nga mën leneen li ko raw ëllëg ndax nag on a besoin de vous on a besoin de de beaucoup de Antejé dans notre localité parce que nag il est temps que la jeunesse ait des gens comme c'est c'est comme Anta pour aspirer à aller de l'avant n'est-ce pas ñu ngi la siy féliciter bu baax a baax maintenant ci bu sans plus tarder et sur présence des ASC qui constituent la zone de. ku ngeen euh, gis sànq moom mooy euh, euh, le secrétaire général de l'ODCAV de Nioro Moussé Dia moom moo ñëw installer officiellement la zone de. di leen gërëm si teew bi nga xam ne teewal ngeen ko suñ jarbaat Anca Dieye man de Kër Yoro laa dëkk. bokk ak eh, mboolem ku dëkk si commune Wack Ngouna maa ngi bokk ak yow di nuyu Aliou Kébé mi nga xam ne mooy eh, honorable député département Nioro mooy maire Kër Madiabel di responsable section arrondissement Wack Ngouna di responsable bi topp si Moustapha Niass si département Nioro si AFP kooku ñu ngi koy dalal jàmm di nuyu Chérif Souleymane Aïdara di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di wax rek ne Anta ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay dalal di wax ne euh, doom bu ne si dëkk nii la war a taxawee si dëkk ndax encourager ñeneen lii dafay encourager koo xam ne mu ngi amoon luy am ni li an ca am te toog te waroon ko def ku am fit ku ñeme ku bugg dëkkam ku bugg boppam muy anca jëy moo taxaw pour defar dëkkam defar goxam defar réewam defar département defar région defar commune kon ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér di wax ne social nii la man damaa dund si social yore naa école Kër Yoro nekk président APE bi jànguma tubaab mais ame naa ko fukki at ak juróom-ñett motivé naa mètre cent mille pour pour résultat yu baax CM2 fi naa mètre quatre-vingt-cinq mille francs si CM2 sama xaalis laaju ma ko école. kon su ma gisee koo xam ne dafay def social dama koy naw moo tax may ñaanal Anca na ko yàlla dimbale te waa Koutango ñaanal leen Anca ndax doom ju mel ni moom yombut doom ju bugg dëkkam doom ju bugg goxam yombut da koy wër waaye du yombut gis kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm euh, Aliou ñu ngi lay sant bu baax. xale la ci at waaye gis-gisam kawe bëgg na goxam xam na num koy xitma c'est-à-dire nan lay servire goxam ku servirul sa gox ku ne ak loo mën a am ak koo mën a doon ak foo mën a dëkk perte nga ngañaay li ci servir sa gox la nekk moom la yàlla bëgg am la yonent bi bëgg moom la ku baax ku ne bëgg billaay ku fi bàyyi fi nga fekk baax dem di jaay jomba ñaaw ca xaj wallaahi di nga perte li nga bëgg doo ko masa kon gis nga yoon wi li nga def tey nag da nga récité leçon bu le président secrétaire général national Moustapha ñas jàngal moom nga récité tey tabax jàkka bergu yaram bi nga jóg ci sport bi nga jóg ci loolu du gis-gisu gone puisque jàkka sadaqatun jaariyatun la loo ci def yàlla dina la ko fay te Moustapha Niass moom rek mooy homme d'état fii ci réew mi boo xam ne dafay tabax ay jàkka di tabax ay jumaa di yóbbu doomu aada yi mayi màkka ju siyaar yonent bi tawax kaaba gi moom rek mooy homme d'état bu senegal ku ci xam keneen nag ma ko wax kooku nag bu la uufee di la tette di tette say morom boo defee lii warta bett kenn puisque santé ku ko amul ku ne doo lekk doo naan doo julli doo nelaw doo liggéey doo def dara kon boo defee ci santé xam nga ne yaa ngi dundal askan wi juma ak jàkka nit ñaar la spirituel la ak temporel temporel bi mooy li ñu yëngu ci àddina fii spirituel bi mooy ruux bi nga xam ne dañ koy sellal kon dal nga ci ñett yi nga def yëpp farata la yal la yàlla dimbali dimbali askanu wàkku nguna dimbalu dimbali askanu kutaango guddal sa wa fan nga bañ a yàkkamti dox ndànk di nga yegg fa nga jëm te it doo complexé gis naa la fii ci pont bi ngay napp jën dugal sa tànk yi ci biir biir ndox mi ingénieur nga kenn sutu la àlluwa ci réew mi xale nga boo doonoon complexé di nga fi géej de wala ngay ciip ciipi te ñun loolu safuñu suñu yoon nekku ci maa ngi leen di gërëm di leen. nga xam ne ni wax na ko à l'endroit de madame Anta Dieye euh, ñu ngi lay remercier ci discours bu rafet boobu macha allah bu gàtt boobu euh, sans plus tarder euh, on a une question de temps. yéen waa Koutango ak li ko wër ñu tudd si Kër Mam Tafa ñu tudd si Fetto tudd si Ngomen tudd si Ndiba tudd si Kër Saroki tudd ci Touré ba Sabuya loolu bu ma ko nuyoo rek dama leen bu ko wax ne man fii laa dëkk parce que xam naa fii ñu nekk ah tey jii Cherif Souleymane dag may may ma wéer suma discours bi ci aaya alquran bi inna laaha yu xayru maa bi xawmin atta yu xayru maa bi anfusihim une communauté ne se développe que quand cette communauté à se développer nest pas la bonne traduction C'est la raison pour laquelle je salue les grandes présences et toutes les présences ici à Koutango, invitées par Madame Ante Dieye. Je parle au nom aussi du président Moustapha Niasse. Sans lui, je viendrais, mais avec beaucoup de difficultés, s'il m'avait dit non. je serai partagé entre ma fille et mon idole. Mais heureusement que les idées se sont retrouvées pour que je puisse venir ici librement. Alors, l'un dans l'autre, l'un avec l'autre, l'un et l'autre, c'est le sport et la santé. Je pense qu'elle a bien choisi d'associer les deux. Sans la santé, on ne peut pas faire de développement. Sans le sport, on ne peut pas avoir une bonne santé. Donc les deux réunis aujourd'hui ici à Koutango fait que le thème choisi est très important. Anta, félicitations. C'est une fille que j'ai rencontrée, elle était encore jeune. fragile et déjà très engagée politiquement. Ma première rencontre avec elle, quand je me souviens, c'était à la permanence de l'AFP. C'est elle qui me reconnaissait, je ne la connaissais pas. Après un bureau politique, elle m'a abordé et elle, elle s'est présentée comme étant fille de Koutama. Depuis ce jour-là, je l'ai prise comme ma fille, ma propre fille. des conseils, pour un soutien et pour toute solidarité pour elle et pour nous. Le faisant, je savais que là, je portais un espoir sur une personne, un individu à qui on peut porter espoir. Bravo Anta, en tout cas, ca kanam rek ca kanam incha allahu rabbal alamin. Alors, j'ai eu quelques interpellations. Monsieur Nia, je porte vos doléances à l'Assemblée nationale. je dirais que les mutuelles de santé ou les postes de santé ont des arriérés, des arriérés qui font que le fonctionnement optimal des centres est complètement réduit. Je le dirai, Inch'Allah, Rabbanamine. Monsieur Sall, le directeur de l'école de Kermadiabé, de Koutango, l'école française. Vous savez, j'ai connu votre père Djidjak, Djidjak Sal, à Cœur Madjabel, il était dans le verger de Moussa Fagnas. Ça devait être en 1985 ou 1986. J'étais venu en vacances. Et je l'ai trouvé, il avait fait un excellent travail avec des produits maraîchers extraordinaires et j'ai demandé. Et depuis, c'est comme s'il m'avait collé. C'est pourquoi je suis venu par la suite à Koutango où j'ai fait un peu développement et à Alors, Monsieur Sall, ce que vous m'avez dit, je le retourne à votre papa, qui est au fait l'instigateur de ce projet-là que j'ai fait ici à Koutango. À l'autre directeur, M. Aïdara. M. Aïdara, nous sommes des voisins. on, travaille face à face. Il est dans son école, je suis dans mon périmètre. J'ai vu, vous l'avez dit, ça a pris un développement fulgurant l'école franco-arabe. Et c'est normal parce que euh, l'éducation sénégalaise avait besoin de cette école-là. Et c'est la raison pour laquelle facilement cette école-là fonctionne. Encore une fois, euh, je remercie encore Koutango et Ngomen d'avoir choisi une école franco-arabe. Et je félicite tous les directeurs d'école et de Koutango et de Ngomen et de Ngomen et Koutango. Alors pour finir, pour finir, yéen jigéen ñi ak seen colaay bu rafet bii ñu ngi leen di nuyu leen ziare tey jii jigéen moo aye ngeen ñëw bokk ndokkeel ndokkeel jigéen loolu day wane ne yéen a koy encouragé day commencé rek yàlla xam na ne dana dem bu ko yàlla mayee fan dana dem te ne ñaan yàlla yàlla may ko fan xam naa ko xam naa intellectuellement fa mu mën a yegg xam naa fitam aussi fan la mën a yegg yàlla na ko yàlla may bu boobaa Koutango du ko regretter c'est une perle pour Koutango et cette perle là perle là il faut la nettoyer constamment et il faut la préserver encore une fois monsieur le représentant maintenant de l'ODECAV qui a installé la zone c'est mon frère Il vient de Kermadiabel comme celui-là, Mbaïkebe, qui est mon fils. On se connaît tous. C'est un garçon très sérieux, ce sont des garçons très sérieux. Et je ne pourrais pas terminer mon discours sans leur rendre un vibrant hommage. Alors encore, Chérif Souleymane, asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf